Welma boutique la bière des VIP mbégte mi tàmbaleeti na à partir du 27 décembre jàpp 27 janvier Welma boutique nekkati na en promo moins de 30 40 50 ba 70 pour cent ci ay njëgam lool laal Welma wàññil la ci dara costume de classe Welma la fekk baax lacoste yu raar chemise yi nag ay chaussures basket chaussures classiques accessoires yi nag du fa jeex montre parfum ceinture ak ay yeneeni bagages accessoires sportifs yi moom moom ma nga fa ne gàññi fees fa dell ay maillot blouson crampon kon gars yi yéexati ñàkk la de daw leen gaaw Sacré kër 3 ci ginnaaw boulangerie jaune bi ci koñu mbay jee Faye Welma boutique mi ngi foofu wala ngeen woo ñu sax ci suñu numéro de téléphone yi 77 555 21 67 wala sax nga woo ñu ci beneen numéro bii di 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste ziar yéen ñaan a di ko sàkku ci yéen ah papis di la nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp kenn mi ñu nuyu ñëpp rek ñaan jàmm waaye ñu door suñu kàddu nag mooy sant yàlla bu baax seen oh. ñaan di masawu Sénégal yi rapport ak am bërki dém mm-hmm. bu métti boobu yu bëri géej di ñaan yàlla ñi faatu yàlla leen yàlla jégal xale leen aljana ñi ci tëdd comme ay yaa ngi nag jàkkaarloo tey ak presse bi am loo bëgg a wax li def mooy bàyyi la nga nuyoo. Mhm. après tamit boo ñu dugg ak yow ci li nga xam ne moom lañ la bëgg a laaj mais ñu bàyyi la nga nuyu Sénégal yi jàkkaarloo yow di la seetaan. waaw sëñ Babacar avant tout dama leen di sant waa presse bi maa ngi leen nuyu di leen jégalu si dérangement bi di leen baalu àq baax a baax a baax euh, di leen santaat di benn côté bi di nuyu suñu grand Ibou Kane sama grand sama xarit Lama maa ngi koy ziar baax a baax ah. sama doom nday a ngi di moom moom beneen affaire dama ko sonal Fadel yàlla leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp Babacar ah di nuyu staff bi bu baax a baax a baax di leen ziar jox seen wàccuwaay tamit di masul li nga xam ne moom moo am ci dëkk bi muy tiis bi tegu suñ kaw ñun ñëpp tegu ci jullit yëpp muy lan muy choc bi nga xam ne moom moo am ñu koy métti bu baax baax a baax mais suñu borom moom kenn du xëccoo moom ndaxte lii yàlla tudd na ko bu yàgg kon donc ñun il faut ñu accepter ko ñu ñaar ñi nga xam ñoo ci génn àdduna yàlla na leen yàlla yërëm yàlla suuf sedd seen kaw waaw malaat yi nga xam ne ñoo ci am nag yàlla na leen yàlla fëgg seen bopp ñu jóg ak jàmm delluwaat seen njaboot su ñu waxee ne méttiwul nag ah waxuñu li am ñun ñëpp la métti mais tam suñu borom kenn du xëccoog moom xam la di jaale ñëpp sénégalais yëpp kilifa diine yëpp. muy Tiwaawan di Kaolack di Njaasaan di fépp bàyyi ma fenn ñu ngi jaale ñëpp Sénégalais yëpp ak seeni famille yi nga xam ñoo ñàkk seen njaboot mm-hmm. maa ngi masalu ñëpp daal di bokk ñoom tiis bi di bokk ak ñoom naqar baax a baax mm-hmm. mais bu ñu fàtte mukk na mm-hmm. yàlla la yàlla la yàlla la buñ ne diw bu buñ ne kenn la yàlla moo ko namee woon ni dañ sant yàlla baax a baax yàlla na ko fi yàlla gëjël ci barke naa moom waaw ca ANACIM maanaam maanaam tey woote bi li ko waral euh, yaakaar naa am na déclaration bu bëgg a def mais ñun balaa ñu yegg ci déclaration bi dañ lay laaj parce que bërki démb ku ne xam ne ne Balla Gaye 2 ak Lac de Guiers 2 ñoo bokk Guédiawaye mm-hmm. bokk Casamance bërki démb Balla jóge ci komba yàlla dogal mu ñàkk combat bi man foofu laay duggee ak yow. Mm-hmm. ñàkk boobu mu ñàkk combat bi ñoom nga star soutenir ko maanaam loo ci wax ak ban adresse ngay adressé Balla. waaw sëñ Babacar woote bi woote jàmm la. Euh, du woote ay woote jàmm la te jàmm lañ fi ñaan. Mm-hmm. ba tax na sama frère Balla Gaye ñëw na préparé na combat am nu mu ko war a mën a préparé jox na ak xam ci entraînement yi yëpp bésu làmba ja ñëw nañ stade soutenir nañ ko dooleel nañ ko ndax deretu géejaay mooy daw suñu yaram ñëw na bëri na def na li mu war def na li mu war yàlla xañ na ko kon donc dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may xolub muñ di ko wax ne champion la bu mu déglu waxu kenn na jóg préparé waat fii ñu ko mag rek moo nekk ci làmb ji faut pas question damay dégg ay nit naan waaw Balla gay jeexal la jeexalul déedéet bu ñu wax loolu Balla Gaye façon trophée bu nekk indi lañu ko biir géej waay fii kon donc tey bu li bu ko lii dalee nit ñi bu ñu fàtte démb bu ñu fàtte démb nañu xam ne ne lii li kat dal mën na dal keneen ak keneen ak keneen te moom rek bëriwu fa ay defet am na ñeneen ñu fa xam ne am nañ fa ay defet yu bëri kon donc lii bu ko dalee nañ ko ñaanal yàlla yàlla yëkkati ko ci jàmm faut pas que ñu koy rejeter mm. wallahi su ma déggee ni nit wax daf may métti mm. mais aw ma loo xamante ne du ma ci taxaw ci laa am mm. pour waxtaan ak askan bi pour waxtaan ak askanu géejawaay wax ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ ko dooleel dooleel bi mooy lan mooy ñaanal ko yàlla ko ci jàmm ba mu ñëwaat bokkaat ci course bi te musul génn ci course bi nag mu ngi ci biir ba léegi peut-être yàlla moo nattu ne tey dafa waroon ñàkk ñun ñëpp nañu accepté ñàkk na te mm-hmm. ñu bàyyi commentaire gi wax gi nag bari na ku nekk ngi wax fii di sànni fii di déedéet loolu du solution bi solution bi lenn la moom mooy ñu ñaanal ko yàlla yàlla may ko wér mm-hmm. surtout wér ak gudd fan boobaa di ngeen gën a gis li leen neex ci moom mm-hmm. incha allah loolu daal laa koy am lu ma koy wax di ko wax di courage doom day na ko àdduna moo tëdd ah waaw son adversaire noonu la boo ñaa liggéey na yaa ngi def na li nga xamante ne moom moo war ci diggante moom ak Balla Gaye ñu ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla ndam bi jikko mm. yaa ngi dégg liggéey na lu mu war a liggéey ñëpp ngi toog di xool kon donc yàlla may na ko ndam nañ ko ñaanal ndam bi jikko di félicité waa tamit parce que ñoom lu mu bon bon bon fair play am na ci diggante bi ndax Pape Sarr mu ngi koy doxee boo déggee ci wàllum communication jàmm rek la doon ñaan te jàmm am na ci biir stade ñëpp ñëw nañ ci jàmm ñibbi waat nañ ci jàmm alhamdulilah mm. di leen félicité di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla def jàmm Pikine géej waaye tamit la même chose yàlla def fi jàmm ñu am xolub muñ nañu muñ rek lépp dina baax incha allah léegi ma rapport ak tey jataay bi parce que dafa mel ni say staff wala la wër. Mhm. dafa lu ñu bëgg ci yow ça veut dire que ma déggee seen wax daa mel ni mhm. dañu bëgg laa dëgg de wàcc ci arène bi 2023 incha allah rabbi bëri. combat royal. combat royal sax na. waaw wala. waaw noonu la noonu la sëñ Babacar xam nga tey boo nekk ak say Mhm. maanaam sa encadrement sa staff bi nga xam ñoom ñoo la yor tey boo nekkee sportif boo xamante ne tey sa lépp moom mooy bëre mhm. kon donc ñoom fu ñu toll dañuy xeex pour yow nga am combat mhm. parce que c'est pas normal yow ñu toog maanaam di 4 avril bi passé lañ mujjee bëre. 2021 ba léegi mënoo fexe ba am combat kon donc yaa am problème problème moom mooy lan loolu lañ toog waxtaan suñ biir pour def lii nga xamante ne moom mooy. jaarale waxtaan bi pour xool nu ñuy def ba am komba waaw problème bi lan la royal l'instant bi ni moo royal moom doon waaw loolu il faut mu sax ci nopp gars yi mais problème problème bi la waaw problème bi ragal la rek ragal la man noonu laa ko mën a gisee quoi mm-hmm. parce que boo xoolee tey mbëri buñ demee ba ci biir bu ki ci war a bërëk la de de moom war a la kii ñii war a ñëw jël seen revanche ñii war a ñëw ñu laale ñu ak ñoom yaa ngi dégg tey bu fekkee dem nañ ba loolu amul rek dafa lu muy mooy ragal bi ñuy te pour man làmb la dañoo war a ñëw bëre surtout royal bi nga xam ne gars yi ñu ngi koy coow war nañ ci mën a bokk suñu samay morom rek ñoo ko bëre. bu nekkee combat royal ku nga xam hmm. naa ko yàggul dara man ko nag combat royal bi. ko teree nelaw couronne bi moo ko teree nelaw combat royal la ku bëgg a bëri combat royal muur loola nga ko mën a bëri pour l'instant. mais moom combat boobu d'accord ma juum seetaan nga ko wala ñenn ci sa staff ko. nee na moom nga xaar parce que mu bëre yow deux fois ngeen dem ci confrontation bu koo xamante ni moom mooy loolu nga xaar ñoom Franc daal may essence. waaw wax googu moom sax dégg naa ko sax moom dégg naa man sama man dégg naa loolu du wax. loolu moom loolu moom vraiment loolu du wax parce que mënu ma concevoir que man bëri naa ko ma seen trois fois. bëri na ñetti yoon maag moom maag ma seen. kon donc moom normalement ci gàttal rek. war nañoo mën a bëri une troisième fois mais faut pas que ñu taxaw ne waaw nañ jël may booy man maa ngi maye sens hmm, soxoruma ndax maye naa mayewaat mm-hmm. kon donc moom pour pourquoi a waruñu mën a laale ñetti yoon comme ni ma ko defee gàmm seen kon donc am na luy kolos ci suuf maanaam moom ci boppam am na loo xam ne mu ngi koy dute ci Lac de Guiers. ñemewul nga bëgg a wax. non c'est pas question dañuy wax ne nit ki ñemewul parce que bu ñu duggee bu ñu bu ñu ci biir bu xuusee ba ci biir ragal da ciy bokk. Ah, kon ñemewu mooy bu ñu xuusee ba ci biir maanaam ragal da ci bokk am na lu xew loo xamante ne ragal na ko ci lante génn. moom mais moom lan la war a ragal koo xamante ne bari ngeen deux fois. waaw ah, liñ gis yëpp seen deux combats yëpp daf la dominer. léegi la war a ragal ci ci yow. non pour l'instant. non lan moo soppeeku ci diggante bi. non non non moom du question ne moom ci boppam am na lu war a soppeeku ci diggante moom xam na. Hmm. xamu ñun mbëri ñun xamante ñu suñu biir. peut-être staff bu duñ ci comprendre dara mais mbër bi ak mbër bi bu ñu jotee laale ñoom ñaar kenn ku ne dañuy xam sa morom li muy saf. Mm-hmm. léegi ci biir loolu nag boo xamee Lac de Guiers mii am na lu muy saf da ngay def recul. Mm-hmm. recule boobu lay nekk di def nii. Mm-hmm. te war na mën a bëri ak Lac de Guiers pour une troisième fois boobaa nag dina leer. Welma boutique la de des VIP mbégte mi tàmbaleeti na à partir du 27 décembre jàpp 27 janvier Welma boutique nekkati na en promo moins de 30 40 50 ba 70 pour cent ci ay njëgam loolu laal Welma wàññil la ci dara costume de classe Welma la fekk baax lacoste yu raar chemise yi nag ay chaussures basket chaussures classiques accessoires yi nag du fa jeex montre parfum ceinture ak ay yeneeni bagages accessoires sportifs moom mën nga fa ne gàññi fees fa dell ay maillot blouson crampon kon gars yi yéexati ñàkk la de daw leen gaaw Sacré kër 3 ci ginnaaw boulangerie jaune bi ci koñu mbéy géey fay Welma boutique mi ngi foofu wala ngeen woo ñu sax ci suñu numéro de téléphone yi 77 555 21 67 wala sax nga woo ñu ci beneen numéro bii di 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste